rapport yi nga xamante ne dañ ko def te ay corps de contrôle yu nekk ci réew mi def ko ñu rendre ko public bi loolu amee ba léegi citoyen yëpp mën a am accès ci rapport yooyu xam contenu bi lan la boo defee jàngat def recul tuuti ci ngay comprendre aujourd'hui lan moo taxoon ñi fi nekkoon nguur gi jaraloon leen seen bakkan ngir ñu bañ koo bàyyi ci ngay comprendre aussi lan moo taxoon dossier aji Sarr ñu teg ci seen bakkan mu jaraloon leen lu ne lan moo tax aussi dossier Mame Mbaye Niang bi ñu def de telle sorte que jaare ko ci pour xañ Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle yi ba yàlla indil ñu Bassirou Diomaye Faye te tey jii mu jiite réew mi lim leen jaraloon xam nga lii nag pour conclure lan la ci nit war a jàngee mooy nit mën nga am sa ay pexe mën nga am sa ay yéene waaye yàlla suñu borom mooy dogal tey ci réew mi bi rapport yi génnee ci ngay comprendre position yu bari yu nit doon am ba ci ay homme d'affaires yoo xamante ne dañ doon jouer tapis dans l'ombre defe ne nit ñi xamuñu leen pour rek. Ousmane Sonko wala ku taq ci moom bañ a jël réew mi mu jaralu leen seen bakkan ñu nekk di jouer tapis dans l'ombre une certaine presse boo xamante ne seen liggéey moo nekkoon formater concocter des éléments pour discréditer non le parti Pastef mais diaboliser le président du parti Pastef loolu yëpp nag tey leb bu tàbbi géej la dëgg commencé feeñ te jàpp naa ne nag dëgg yi commencé feeñ kanam la jëm moo tax li ëpp solo ci àdduna mooy looy def def ko ci dëgg looy nekk nekkal ci dëgg ku mën a dem bu ñëwee fekk la ci dëgg loolu moo am solo réew mi nag dina tegu ci axe